jërëjëf mbokku téléspectateur yu télévision Prestige yi ginnaaw bu ñu loon nuyoo ziar leen bu baax a baax euh, ñu ngi fii ci euh, Touba Mbacké bu ngeen gisee nag yi nag xam ne euh, ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Saliou Gueule Tapée di taawu Serigne Cheikh Béthio Thioune njiital cantaakun kuni moom nag moo daal di amal convoi nak yi nga xamne euh, mom ngeen di gis jamono ji nga xamne euh, ñu ngi wacc ci dëkk bu sel bi di euh, Touba Mbacké ngeen koy gis nonu ci image mu nek nak lu exceptionnel lo xamne ñu ko tambali ci depuis jamono Cheikh Béthio Thioune bi fi nekké sa suné dafa daan andi nak yu bari diko jaglel jagleel ñi nga xamne ñom ñoo di kilifa yi nekk ci rew mi soxna Cécile yang koy suivre ni en direct mu di yi nga xamne ki nga xamne modi taw Cheikh Béthio Thioune euh, moom moo ko tey euh, fas yéene euh, dugal ci dëkk bu sell bi di Touba mu jëm nag ci li nga xam ne moo di waajtaayu màggal gi Ahmadou Bamba lii lii duñu ñu def lu dul doon du ñu wax ni gëlët parce que ki nga xam ne mooy baayam bu tedd ba yàlla nañu yàlla tas ci barkeem moo ko daan def ni ki tey nag bu ko daal di defee dañ naan duñ ni gulet waaye nag dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba muy dox ci tànki baayam waaye nag dañuy wax rek ni ni mu ni mu mën ren yàlla na ko mën déwén parce que papaam ci rek lii rek la daan dox Ahmadou Bamba mu ngi saali Saliou euh, Gueule Tapée euh, di taawu Serigne Cheikh Béthio Thioune nekk xalifaam nga xam ne euh, bi fi Cheikh Béthio Thioune bàyyee ko coow li xamoon naa xawoon naa bëri lool. waye ku ne gis na taxaway bi mu am ci dégg ndigal li nga xamne mom moom la ko Serigne Mountakha Mbacké mi fi khalife général des Mourides jox mu dal di koy jëfee tey nag mu nek mairie ci mom ginnaw bi nga xamne ànd na ko ki rakam ànd ko talibé Cheikh Cheikh Béthio Thioune yi nga xamne tay ji ciofel lañu am ci ki nga xamne modi Cheikh Béthio wa li ñuy wax rek mom moy dañ nan Cheikh Béthio lim fi dal ci ay tànkam bari na parce que tagat nak domam ci yonuk Mouride waye nak tagat nak ay talibé ci yonuk Mouride parce que tay ji li dañuy wax rek ni jëmuk Serigne Saliou Saliou la ñuy gis parce que Serigne Saliou moomu moo defar Cheikh Béthio Serigne Serigne Serigne Béthio moom moo defar ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Thioune jëmale ko ci dëkk bu tedd bi di euh, Touba Mbacké donc li ñuy wax rek dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin Ahmadou Bamba comme ni ma la ko waxee sànq dañuy delluwaat ci yàlla daal di ñaanal Cheikh Béthio Thioune fa mu tëdd Serigne Touba fayal ñu ko ñaanal ki nga xam ne moom la yenn wi daal di tegu ci kawam moom mu doon loo xam luy attan lu mu attan lay doon. jërëjëf soxna Cissine yéen a ko gis noonu ci en dimanche euh, mu nekk nak euh, euh, nak yi nga xam

ca mbooy mbooy ga euh, ginnaaw bi nga xam ne rek taxawaay yu am solo la jagleel nag édition 2021 di màggalug Touba euh, mu nekk nag ay nag yu baree baree bari yoo xam ne li ko tax a jóg rek mooy ànd ak sëriñ bi ci cant gi nga xam ne woote na ko ne bés bi heure bu dellu siwaatee nañ ko ci santale suñu borom muy jiwu safar euh, di bésu mbégte di bésu bànneex di bés boo xam ne askanu ñoom ñoo ko moom waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di murit yi nga xam ne tey ku ñëw fii ci Touba ànd ak njabootu Cheikh Béthio Thioune di nga xam ne euh, Serigne Serigne Serigne Béthio ci liggéey na di nga xam ne également euh, Serigne Béthio Thioune euh, amoon na ngërëmal ki nga xam ne moo di Serigne Saliou waaye kenn du Serigne Saliou Gueule Tapée bi nga xam ne moom mooy taawam ci liggéey Cheikh Béthio bi fa mu ko fekkoon rek la ko bëgg a jëlee rek yóbbu ko ca kanam ginnaaw bi nga xam ne daal dinay dégg ndigalu ki nga xam ne moom moo di Serigne mun Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo di xalif général des Mourides alhamdulillah